masawa yàlla xam na ko meru ma de meru ma de man nit mënatumaa def lu ma naqar waxoon naa ko ci kanamu Cerno Bachir yéen ñëpp a ngi toog ma ne ko ku ma mosa tooñ baal naa la ku ma tooñagul baal naa la ku ma tooñ ba noppi baal naa la ku nekk ci yoon wi pour tooñ ma baal naa la buñ demee ba bés pinc yàlla ne ma ñii ñëpp dañ laa tooñoon baal naa leen foofu laa toll ci jaami yàlla yi ma ma kenn dara ma kenn dara ma kenn dara ma kenn dara ku ma mos a tooñ baal naa la ku ne ci yoon wi di ma waaj a tooñ te tooñagoo ma sax baal naa la ñi ma tooñ ba pare baal naa leen ñi ma tooñ te xaw ma leen bu ñu demee ba bés penc yàlla ne ñu ngi baal naa leen jeex na ñun ñëpp nañ ubbi xol yi rek gis nga kii kii barki rasulullahi boo ko ubbee raxas ko ba mu set yéene ñépp yiw doy na jaamu yàlla doy na julleeg naafila ndax julleeg naafila yépp kii lay defar imaam Yuusuf yi julleeg naafila yépp kii lay defar alaaji Moussa Daaf julleeg naafila yépp kii lay defar gis nga bu kii jagee tëddal nelaw kii bu jage tëddal nelaw jaamu yàlla yi la yàlla di sant yëpp pour kii jag la moo tax mu wax ne illa man atallaha bi qalbin salimin bés penc ki may accueillir man yàlla taf la ci sama bopp teral la mooy ki ñëw ak xol bu set wecc ah kilifa kilifa gu baax moo ma ko seddal ku ñuy wax sëriñ Moustapha Sy responsable moral mustarshidina wal mustarshidaati di doomu sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum bu Seydi Aboubacar Sy bu Cheikhul Hadji Malick moo ma ko seddal de <coughs> responsable yépp a ngi toog imam Moussa Gueye nga fa woon mu ne ko boo demee ne shérif li ko may lim am xolam bi comme perkal sëñ Moustapha ko wax de te xam ngeen ni ko soxlawul ci man dara moo ma fuuf lépp lu may jaay rek moo ma ko fuuf kon xam nga ne kooku soxlaa lu ma dara bu demee ba woo responsable yépp wax la muy wax ne leen yóbbante naa leen ci shérif Ibrahima rawati yow Moussa Gueye yóbbante kàddu yu rafet ne ko boo demee ne ko li ko may lim am xol bi comme perkal te billaahi wax na dëkk ndax looy wax ci nit nit ak la gën a xam boppam waaw nañ ñun ñëpp nañ fexe loolu rek gis nga xol bi fan affaire bi ne bu xol bi setee loo bëgg am jarul sax allahuma kii kii waaw bii moom jël ko fii du jigéen ñi koo ne foo ko def mu ne fii ba déet bàyyil ma ngadd ko ba li ci nekkoon di eh, li yàlla wax ne niñ koy waxee di eh, niñ koy waxee di kalla barraana ala yàlla mën a wax kalla barraana ala qulubihim maa kaanu yafaluun yàlla nee na gis nga boo fi bi day def benn put nga merewaat nit mu def beneen nga bon xol mu def beneen nga iññee mu def beneen nga iññeeti mu def beneen mu ne laabaraana mu gi xol bi day ñuul kokk ak tupp tupp yu ñuul ala qulubihim yàlla ñu ci yàlla musal waaye bu féexee évacuation évacuation lu ñëw tag comme acier yuy ñëw tag bu yàlla yére gis mu weex tal mu nekkaay ma wax ak yow moo tax mu ne xajuma fen ci xol bu set rek laa xaj Serigne Cheikh Tidiane si nee na xol bu yàlla fa war a fanaan boo ko fa génnee loo ko fa dugalati dootu dootul fees ndax yàlla ko mën a fees te génnee nga ko fa ñuy waxtaan ak njaboot ñàkk waxtaan ak njaboot gi moo indi yenn faay yépp moo ko indi ñun amuñu culture di waxtaan ak suñ famille rawati sa soxna damay wax ne ki nga bëgg ut whatsapp mu ut whatsapp ndax seen wax gën a mën a bari ngeen di wax de 11h à 4h di matin wala 5h du matin bu bilaal ne allahu akbar nga ne i fajar jot na xaat yëgoo ne fajar jot na ndax ki ngay wax la tax ñu may la ko samedi ca jàkk ja dimanche altine mu sëy si weer wi deewagul ngeen jàppante ba si sépp kenn ku naan sa morom su booxum wala tansawul fadla baynakum yàlla ne bu leen fu fàtte whatsapp bu démb ya góor lenn rek a ko war loxo bu gaaw ci poos nijaay jox ma bébé jox ma papa jox ma génneel montant bi mu la laaj bu fa newu li joxin waay tax ne ko oh ma puce malheureusement li nga laaj newu fi waaye billaay wal kitaab bi fi newoon téyel ci lii ba suba joxin walla boo ko joxoon léegi mu laaj la dix mille nga jox ko quarante mille am na noo ko koy joxee mu suul ko <laughs> ah, général Kara ngi bëgg a dee ah, ah waaw ah maa piis ah piis ah rien du tout y rien du tout c'est ta piis xawi bismillah waaw moor alaaji moor sekk ki ci des piisu portable génnee ko ci portaabal bi jeex na c'est ta pièce moo tax islam ne booy doxantu sax ànd ak sa soxna na la féetee gauche ndax xol bi gauche la nekkee faaru càmmoñ bi mu jógee woon càmmoñ la nekkee gauche moo tax sharia yonent bi nee na booy doxantu guddi ànd ak sa soxna na la soxna si féetee gauche nga mën koo lëng ndax fa la jógee woon yonent bi kenn du waaw jigéen ci faaru càmmuñu góor lañ ko génnee moo tax góor faaru càmmuñam dafa manke moo tax bu naan jigéen ñi dañ manqué na ko jigéen ñi lank benn jigéen manqué wul góor ñee manqué moo tax hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna lu tax yàlla njëkkee ñu hunna ñoom jigéen ñi yàlla nee na libaasun ñooy seen yére yéen góor ñi wa antum yéen jigéen ñi góor ñi tamit libaasun lahunna ku summi sa yére nag def yaramu neen mooy ku toroxal sa soxna def yaramu neen ku toroxal sa soxna def yaramu neen hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna génneel ma li jiitu baat boobu bu fekkee am na xufaas bu fi ne bu gaaw am am na lu ko jiitu li may wax mooy teglantoo moo tax jëlil ma ko hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna boo demee ca bopp laaya ja ngay xam piir li ci yàlla jublu daf ma rëcc ku summi sa yére nooy def say a nekk ci biti moo tax yàlla na yonent yonent bi ci alxuraan yoo xam jullit ñi leen na ñoom jigéen ñi libaasun ñooy koddaay lahum ñeel góor ñi wa antum yéen jigéen ñi libaasun lahunna antum libaasun lahunna hunna libaasun lakum loolu la njëkki hunna ñoom jigéen ñi yàlla ne libaasun koddaay lañ ah hunna libaasun lakum koddaay lañ yére lañ ci yéen góor ñi wa antum yéen góor ñi tamit libaasun la hunna koddaay ngeen yére ngeen ci jigéen ñi ku summi sa yére nag def yarami neen ku toroxal sa soxna def nga yarami neen soxna su toroxal jëkkëram it def na yarami neen wa jaala baynakum mawadda wa rahma yàlla ne maa def ci diggante góor ak jigéen cofeel waxul mbëggeel de mbëggeel amut mbëggeel amut te mbëggeel wóoru kenn rek lañuy bëgg yàlla ko yonentam moo tax yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin alal muminina aizzatin alal kafirina yujahiduuna fi sabilillahi wala yaxaafuuna lawmata laimi yàlla la bëgg ak ko yonentam waaye góor ak jigéen mbëggeel amu fa xam nga lu fa am cofeel cofeel day niroog mbëggeel te moo ëpp doole xam nga cofeel mooy jur yërmande ku jur yërëm ku jënd sa kanal ku jur yërëm ku jënd sa kanal cofeel mooy jur yërmande moo tax yàlla ne wa jaala ma def bàyyi mu seen diggante ma wadda cofeel wa rahma ak yërmande xam nga wolof moo ko firi xam nga luy cofeel kii taar nga ko cofee taaram nga gis am ci moom cofeel kii diineem nga gis am ci moom cofeel moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tunkihul mar'a li arba'in li maaliha li jamaaliha li nasabiha aw li diiniha faxtar bi zaati diini taribat ya dàkk moo tax yonent bi ne booy tànn tànnal ñeent yi kenn ngir taaram gis nga dafa xam ne nit zuyina li naasi xubbu shahawaati moo tax mu njëkkee foofu bëggul njuuy bëggul juuyoog yàlla benn xadis bu juuyoog alquran amut gis nga fi mu njëkkee li jamaaliha yàlla ne zuyina li naasi xubbu shahawaati min annisaabi li jamaaliha aw li nasabiha yax bu rëy Sërif Maamine Aydara nag nee na man gisaguma ko am yax bu tuuti ndax gaa ñëpp koo wax rek ma ne ci yax bu réy laa bokk te ñu dëgg la ñun ñëpp yoxu kaña lañ yor yaxu ñay lañ yor kenn yoru fi yaxu kaña li na sa fa mbokk tax hmm? li maaliha li na li jamaaliha aw li diiniha tànn ko ndax taaram wala alalam wala famille bu mu bokk wala pouvoir bu mu am yooyu yëpp ci la bokk doomi ministre bi la doomu député bi la mooy député bi mooy ministre bi waaye yooyu day jeex de mu ne aw li diiniha walla diine ju am mu ne man mi yàlla yónni ma xam li xew te Serigne Cheikh nee na xam li xew bokk ci coow li xam li xew a ko gën mën a waaxu xam yoon a ko gën bari pexe saf yàllaa ko gën Serigne Cheikh Tidiane si nee na mën a waaxu xam yoon a ko gën bokk ci coow li xam li xew a ko gën bari pexe saf yàlla ko gën yonent bi nag ne man mi xam li xew faxtar bi zaati diini tànnal ki am diini mu ne soo ko deful rekk taribati yaddaaka sa loxo tarxiis na tànnoo dara ndax diine rek mooy des taar day jeex moo tax kër goo dugg gis gaa yi wekk seen photo yi ah, waaw boo demee kër Baba Guèye ndeysaanee ngi def benn fii Baba Guèye yal na ko yàlla yërëm mu ngi def benn fële mooy ku bëgg wax ñu ne xoolal ba ma cay toll te yaa ngi mel ni golo gu màgget ana taar ba jeex na boo tànnoon limaaliha mu xëy perte foo jëm nit day am ba mu yàgg ñu ne yoratul tus aw li nasabiha nga tànn ko ndax ndombal tànk bu mu am buñ ko follee na aw li diineha nga tànn ko ngir diineem moo tax mu ne fax bi zaati diini tànnal borom diine soo ko deful taribat yaddaaka sa loxo tarxis na diine mooy sax diine du ràpp day gën di rafet rek day gën di rafet rek ngeen ànd ci kóllëre ba xëy dee jow Serigne Cheikh Tidiane si nee na man dama bari wax te baal leen max Serigne Cheikh nee na dafa am ñaari couple yu mas a ñëw ay tubaab française lañ nee na mu ñëw ki ne ko Cheikh Tidiane mosuma doxaan ba ma juddoo ba te nee na tubaab la de du jullit du tubaab buy julli mu ne ko ba ma jud juddoo ba ni ma takk jabar mosuma doxaan mu ne ko sama jabar ji mosuma xam beneen jigéen bu dul moom bëgg na ma bëgg naa ko façon bëggeel boo xam ne dama bëgg nga ñaanal ma yàlla ñu deewandoor benn bés man moom mu ne ko j'ai quatre-vingts ans moom deux ans laa ko magee elle a soixante-dix-huit ans ma bëgg ñu deewandoor benn bés maag moom Serigne Cheikh ne ko est-ce que tàgg nga ko ñu ko wax nga dëgg est-ce que moom préféré na pour deewandoor ak yow benn bés kañ <laughs> bu dara desul du dee léeg nga dégg ku ne ko demal rek te ba ma fi waaw wala demal maa ngi ñëw moo tax ngeen baal ma faxtar bi zaati diin tànnal borom diine boo ko tànnee rek baax na waaw baax na fu ma toll woon kon ah, waxal waaw kañ kon hun na libaasun lakum jeex na foofu laay jeexale jox oustaz Sidi mu dugg ci waxtaanam min an nisaai min nisaikum sax la waaw ar rafasu waaw moo moo foofa la tàmbalee de waaw kañ xam nga lu ko waral ah alaaji Mor yow doo nit dajëf sekk su nganaar waaw ah waaw waaye géwél bu bari xam-xam baax na. waaw waaw. waaw ah, sekk mën nga ganaar. waaw ah, kay. waaw ah, nga ginaar ndax dañ koo mën. baal ma de rajo bi sekk yal na ko yàlla yërëm ku mënoon ginaar la xam naa ne dana am ci ginaar yi àjjana yow moom ndax ku mënoon ginaar la tabaarkàlla waaw. Eh, uhillat lakum ah. laylatu siyaami arrafasu ila nisaikum ila nisaikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna xam nga lu tax yàlla dafa bi weeru koor bi njëkk a ñëw yàlla dafa tere woon guddi weeru koor wi yépp ku ànd ak soxna ba weeru koor wi jeex dafa ne bu kenn laal soxna maanaam jaxasoo ak moom sëy ak moom ci guddi gi gaa yi dawal 15 jours mënuñu ko am ñuy sàcc naa la ko sàcc xéwlu rek dem sangu ji ñëw ci yonent bi ne pat naa la ko yàlla ñu xam yàlla dafa xam nit am ñoo xam ne dem nañ ba ci ci ja sax fukki fan yu mujj yi ñu ne ah affaire bi tar na te yàlla waxul jigéen ñi de góor ñee ko doon def léeg-léeg jigéen ji ñu soxna si romb ko daagu gannaaw timis dem ñëw mu ne ko soxna si xaar ma yàlla mujj na yonent bi sa gaa yi ñu ngi feeñ ñu ngi lay nëbbatu waaye maa ngi leen di gis léegi nag wax leen ne uxil la daganal naa la ko ñeel leen laylata siyaami guddi koor bu ngeen dogee rek a rafasu jege leen ila nisaayikum seen soxna yàlla bari yërmande waaw laylata siyaami la wax waxul nahaara siyaami waaw laylata siyaami guddi guddi koor ar rafasu mooy gis nga baat boobu amul ci olof eh bu ma ko tojoon ñu ne cagalaa billaahi wal te dinaa ci toj as lëf ndaw wala jaw waaw Galaye jaw moo njëkk a taalif téere bu ñuy tuddee ataanu ataanu gën ngee kuur gi la ko tuddee waaw xam ngeen wala xamu leen gën du mooy dëbb ci kuur kuur mooy dëbb ci biir gën mu tuddee ko jaxasoo góor ak jigéen mu tuddee ko góor gën gi kuur gi Eh, taanu la tuddee téere bi mag ñépp ne kii cagala kenn du ko jàngale ci seen daara Serigne Cheikh ne mag ñu sincère ñi rek ñoo ko jëloon di ko jàngale ci seen daara yi xaqiqa la mais demal ci suratu suratu baqara wala suratu nisaa li ci yàlla wax aaya bii rek boo ko tojoon tey àddina tukki uhilla lakum laylata siyaami arrafasu ila nisaaikum uhilla daganeef na le dagaleef na daganaleef na uxil la daganaleef na li ma xaramaloon ci yéen man yàlla mii xaraamal di daganal uxil la daganaa dagaleef na daganaaleef na laylata siyaami guddik weeru koor ar rafasu baatu rafas amul firi ci wolof bokk na ci alquran baat yi amul firi parce que prima moo gudd amul benn baat buñ koy firi rafas ci la ci la bokk ak euh, daan naa ko fi wax de hmm? ah? ku ko fi jàpp uf baatu uf uffin fin wa lima taabuduuna min dunillah wala wala taqul lahuma uff wala taqul lahuma uffin boobu sa ñaari way jur la yàlla doon wax ne bu leen wax uf uf amul firi uffin lakuma maam Ibrahima ko waxoon ña doon jaamu xërëm walima taabuduna min dunillah innahum xasabu jahannam hmm? waaw kañ ñaari baat yooyu amul firi gis nga lu tax xam nga lu tax uf wax ak sa yaay ba mu yàgg nga ne nii ci la bokk nii xam nga nii rek nga def mais signification la te yow mi ko def rek yaa ko mën firi wax ak sa yaay ba mu yàgg nga sànni loxo ndax la ca sa xol ba nga sànni loxo boo ko waxoon sa yaay rey na dëgg la wala dëgg wala sa bàyyi rey na nga sànni loxo uff sànni loxo ci la bokk xeelu ko be ca la bokk eh. ca la bokk ah dañ koy def jigéen ñi dañ koy def eh, eh. uf la bokk ci uf la bokk ci bët adada ci uuf la bokk luy bijji ñàkk teggin jëme ci say wayjur rek uuf la moo tax amul piri rafas kazalika amul piri fala rafasa wala wala fusuuqa wala jidaala fil xajji ñëwaat na ca baat booba jàppal alaaji moor falaa rafasa boo gisee yàlla indi ko ci aj falaa rafasa wala fusuuqa wala la fil xajji ar rafas mooy lépp luy bijj ngay indi xuloo ca biir màkk ci la bokk moo tax mu di ko détaillé nag ne falaa rafasa wala fusuuqa bu fa def kàccoo wala jidaala bu fa nekk di werante affaire politique wala leneen ak leneen fil xajji fekk yaa ngi ci biir aj gi ndax dégg nga wax bi bu baax falaa rafasa wala fusuuqa wala jidaala fil xaj xajji moo tax bi mu nee rafas xamuñ ko mu ne wala fusuuqa bu fa def kàccoor wala jidaala bu fa nekk di werante fil xajji fekk yaa ci aj gi fii mu ne uxil la daganeef na dagalaneef na laylata siyaami guddig weeru koor arafasu mu nga tàmbalee ci ba nga téyee loxoom mu raay la nga raay ko fóonante door a ñëw yooyu yëpp ca la bokk de yooyu yëpp ci rafasu la bokk te yonent bi nee na bu kenn séy ak sa soxna ni mbaam di séy ak moroomu mbaam yonent bee ko man mu ne bu kenn séy ak ni mbaam di moroomu mbaamam xam nga mbaam balaa si jot ci moroomu mbaam dana ko weq ba mu tas mm-hmm. di gis geen ko weq ci ŋaam weq ci fu ne balaam koo jot yonent bi ne baaxut mu ne bu dee jigéen ca tàkkusaan na commencé wane boppam waaw léeg mu sànni loxo peer njaayu ko wax yu siw léeg mu déyi ko léeg mu ñëw ba ci nopp bi rek am àddina tukki na am lu mu ko déy ah loolu moog yàlla rek a xam ah léeg rek oustaz yi di mbay ne ko ma la jàppee tabaarkàlla tabaarkàlla ah yooyu yëpp ci rafas la bokk docteur du noonu yoro ah, ah docteur yaa ngi fii toog waaw ñoom les professeurs daaf est là lui c'est un professeur à l'université Cheikh Anta Diop c'est un professeur grand professeur ci ci média télévision yi c'est un professeur mooy loxo ndeyjooru Papa Tall Thierno Mountaga Tall Papa Tall bu Thierno Bachirou Mountaga Daha Cheikh El Hadj Oumar fii ay boromi xam-xam rek fi ne man waxuma lu jommal kenn moo tax a rafasu yooyu danaa ko toji bés xaw ma kañ la bu yeboon nag lu ñu leen neex ñu wax te gis nga ñi koy critiquer yépp ñoo gën a saay saay golo man maa la ko wax am na ko ma mos a téléphone am ci koo xam ne sax dafa ñëw ba jàkka mooy vidéo boobu ñu doon partagé ma doon dox ci ku ku sëyi ku sëyul waaw ci borom oom yi mais loolu mu ngi ci mu ci téere bi ki euh, euh, téere bi jawahirul iklil jawahirul iklil boo demee kañ yooyu yëpp a nga ca mu dajeeg man fekk ne ma mais yow bi ngay wax loolu xanaa danga naan sàngara ma ne ko naanuma sàngara ji mu ne mais li nga wax noo osé wax ko ma ne ko yow ñaata doom nga mu ne xujj di xool ma ne ko ñaata jabar nga am te may naa ko ñaari jabar man mu ngi ñeenti fi ne li mu yor ci njaboot kenn xamul nu mu toll toll ni weñ comme man ma ne ko yow loo may wax yow mu ne wallaay ma ne ko yow yow ko nekk war a wax ba mu des yow yow moom nii laa ko ko waxee ma ne ko yow moom yow moom xamante nañ ah déet mu taxaw ma wax ko li ma ko bëgg a wax yow ah ma ne ko yow ñaati doom nga am yow xamoo ñaati doom nga am ji yëpp nag doomi yoon lañ dagan nañ waaye est-ce que kurus gee ko jur sëriñ la di wallaay ma ne ko kurus gee ko jur ma ne ko bu dimbale ma je te ah, te dama ko xam am na jabaram bu tas boo xam ne sëy yu baree tax mu tas dana ko seetaan lii may wax maa tey parce que daf may jéem a offensé ah oui mais lu ci ne li ñuy waxtaanee lu ci ne te boo wéetee guddi def ko nga ne duñ ko waxtaanee te yonent bi nañu waxtaanee ko alxuraan waxtaanee ko. alquran jaar ci digg bi nisaaukum xarsun lakum faatu xarsakum anni shitum wa qaddimu li anfusikum waalamu annakum inda aljimaai mulaaquuhu su boobaa nag wa bashiril muminina ku la bëggalu tit bëgg nga ah bu ñu kenn fontoo ay nit lañ nekk ci àddina bii di lekk ceeb di naan ndox xorom si topp ñu du ñu malaaka du yàlla malaaka yeeg yàlla rekk a ci mucc kudul dul malaaka doo yàlla di nga def yëfi nit bu ñu kenn fontoo ku dul yàlla di nga def yëfi nit waaw oui le problème mais gàcce newu ci yonent bi daf daan ànd ak i soxnaam génn sangu ñëw toog ba ci la jàngalee ne boo sangoo cangaayal farata tey góor te sa loxo biti loxo bi laalul sa awra mën nga ci julli farata où est le problème waaye yonent bi baax baax boo xam ne nag léppam la ñuy nettali te kenn du choqué wu waaye koo fi nettali woon jëfi baayam yet topp la te yonent bi biir néegam sax yàlla daf ko génnee ci biti biir néegam amul sax vie privée yonent bi amu ko vie privée bépp sax yàlla def ko génne lépp ci biti exposé ko xam nga lu tax moo war a jàngal ñëpp ki war a jàngal ñëpp war te nëbb dara arab yaa ngi nii rek bu njëkk ku ci daan tuur ndox dangay ngay dox toll ni fii ak Pikine ndax rëy Serigne Cheikh nga koy nettali bés ndax rëy door a jonkoon gestu gauche droite kanam gannaaw bu la kenn gisul nga door a jonkoon tuur ndox xam nga yonent bi bi mu ko bëggee dajjati nu mu def dafa ànd ak saxaaba yi ba mu yàgg mu ne téyel leen ma gëlëm bi ñu téyel ko mu ne ñaadam ñaadam ñetti jéego jonkon yegg suuf tuur ndox jël ndox setal boppam ñëwaat yéeg ci gëlëma saxaaba yi ne ah kon nii la gi ñun suñ dox yu metti yëpp kon jaru ko woon rëy dañ ne ci ñoom am na koo xam ne mën nay muutali saw te day rey nit baaxut Seydi Hadji Malick bokk na yi mbind ne day indi feebar Serigne Cheikh Tidiane si ne na bi sëñ Seydi Hadji di door a dem mag ñi di concours sa njàppum fajar nga julli ci gée mu ne sëñ Babacar woo leen ne da ngeen di xaru mu ne sëñ Babacar si moo leen woo ne leen da ngeen di xaru njàppum fajar santuñ la nga julli ci gée li gën sax mooy yonent bi li mu wax waxtu wu ne nga jàppal ko ndax tiyaaba bi ne ci njàpp mu ne beneen bi ci des saf tuur saw tuur euh, ndox ci sa saw day indi feebar Seydi Hadji Malick bind na ko ci gannaaw kër day indi feebar mu ne bu ngeen bëggatee tuur ndox dem leen tuur ndox jàpp te ñëw julli te taalibe tiijaan yi dañ koy tiitaroo sama mu fajar ci laa julli gée rey nga sa bopp rey nga sa bopp kenn sant la ko li ëpp tiyaa ba fuuf mooy waxtu wu jot nga jàppal ko yonent bi mosul julli ñaari waxtu ci benn njàpp waxtu wu ne daf ko daan jàppal waxuñ nag ne dafa bon wala dafa xaraam déedéet waaye tiyaabo yi ci njàpp ku ko xam sëñ bi kon nag fa tabaarakallaahu jël naa lu bari ci temps bi waaye du tee na waxtaan suba samedi la kenn xëyul dem fenn nag ñun ñëpp ñu bokk déglu oustaz Sidi Ahmed li mu waxoon ci sëy mu waxaat ko incha allahu bu bu ci bu beneen yoonee nag luñ ci war a taaliix ñu taaliix xam nga lu tax jamono bii sëy yi takkoon na ko su néew ñu ngi tas te kenn fasatul yéene takk kon fu jigéen ñi jëm jigéen ñi ñàkk a xam tax na am na ñu ne fi mu ne man baax na sëy moom merci ndax ca la nga jóge waaye bés yëpp du ñu àllarba bés yëpp du ñu àllarba bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër. te yàlla nag da lay nattu la shérif Maamin dara waxoon alastu bi rabbikum ja balee ja góor gu ñett fukki jigéen noonu man ci Mansour Thiam man man man man balaa Mansour di dee ñëpp dana leen takk moo tax tas di am foofu laay jeexale gis nga boobu laa doon bëgg a wax fàtte ko mawadda da ngay cof foofu laa toll woon taaram ngay cof ci moom bu taar bi jeexee nga ba gis nga bu yàlla waxoon xubb ku sëy du tas bu waxoon xubb ku sëy du tas moo tax xubb bi mu wax si diggante ma suñ diggante ak moom bàmmeel la koy prouver xubb mbëggeel gi yàlla wax suñ diggante ak moom bàmmeel la koy prouver moo tax ku dee ñu dugal la bàmmeel mbëggeel googu di di preuve moo tax yàlla wax ko yuhibbuhum yéen jullit ñi yàlla ne yuhibbuhum daf leen bëgg ñoom jullit ñi it yuhibbuun yuhibbuunahu ñu bëgg yàlla yàlla ne waaw ki ma bëgg ma bëgg ko azillatin ndax toroxtaange azillatin ndax gàcc àddina ak allaaxira azillatin ndax ñàkk a tedd alal muuminiina dafa nekk ci jullit ñi aizatin ndax teraanga aizatin ndax tedd nga aizzatin ndax teraanga àddina ak alaaxira alal kéefirina dafa nekk ci ci yéefar yi yàlla ne déet te ñii ñu ne dañ torox ñoom yu jaahiduna fi sabilillahi ñu ngi xeex seen itte guddeeg bëccëg mooy jëm si fi man yàlla jaahid du gàddu jaasi rek moo tax yonent bi ne rajaana min jihaadil asgar ila jihaadil akbar yonent bi moo taxoon mu ne génne nañ ci jihaat ji gën a tuuti jëm ci jihaat ji gën a mag saxaaba yi ne ko yaa rasulallah jël jaasi ñu di gorante lu ko gën a rëy am na mu ne waaw ñu ne ko ban mu ne jihaadu nafs xeex ak sa bakkan mooy lii ngeen di def gasama bi am na leneen lu mu tal lu dul ñëw fi lu ko fi indi jihaadu nafs jeune bu tabaarakallah jeunesse bu toll nii ci góor ak jigéen ngeen toog fii mënoon na Saint-Valentin yi ca yëngu leen cosaan barabu dancing yépp xam ngeen ko étoile bidiw ba mënoon fa dem toj ko ne ko rajax ñëw toog te kenn du ko xam dëgg la wala dëgg ngeen ne yalax lépp ñëw toog fii du ut yàlla yàlla na yu jaahiduuna fi sabilillahi mu ne te ñoom ñooñu kat wala yaxaafuuna lawmata laa'imin ragaluñ ku leen di yedd naan seer ngeen ay seer lañ ay jondoo lañ nanduñu du ay nandite yàlla ne baat yooyu dérangé wu parce que xam nañ kiñ ñu amal affaire mooy man wala yaxaafuuna lawmata laa'imin wala yaxaafuuna ragaluñu ñoom jeunesse boobu mel ni ma wax nii man yàlla wala yaxaafuuna ragaluñu lawmata ŋàññi laa imin aji ŋàññi ja kanaan ay seer lañ ay jóndoo lañ nanduñ duñ ay nandite dañoo tardé moo yooyu dérangé wu leen ci góor ak ci jigéen jeunesse boobu ñu ne yàlla lu tax mu ne xam nañ ki ñu amal affaire mooy man salaamaaleykum wa rahmatullah